te nii da ngeen daw dugg ci benn gaara sooyee seen bopp xale yi nag loolu exemplaire la ci yéen bu leen kenn def yetu xeexukaay bu leen kenn def nagu sarax bu leen kenn def nagu dëj na ngeen ànd ak jàmm ñu dem ci élection yi élection yi jàll ci jàmm ñu gouverne ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf wi lan 88 628 14 14 salaamaaleykum aleykum salaam ah kooku alaaji Barthélémy oui Limam Ratib da <laughs> nga def si monsieur le ministre Mbacke Ndiaye waaw na ngeen def ça va bien. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. Barthélemy. man de xam nga dama far. Hmm. Waye fasuma yene wax waxu far. Hmm. dama bëgg lima xam ci lu tuuti lo nga xamé Yalla baxé baaxee na ma ko. Hmm. ma léral ci nit ñi déglu kenn ku nekk nak apprécier. Hmm. ndax Yalla def na acteur politique la. Hmm. mais aussi biñuy ñuy tëggaat code électoral bii ñu tan ma mu bokk ci commission dialogue politique bi Hmm. kon amna na tuuti lu ci xam. lan mo xew code électoral bi dafa wax ni liste bu respecté wul parité góor jigen góor jigen góor jigen ba ba muy jeex dañu lay dàq. mu teg ci ni bu dee dafa tóol maanaam impair. comme le cas de Dakar boo defee góor jigéen góor jigéen góor jigéen xam nga siisa ngi noonu. septième ba bu la neexee def ko góor bu la neexee def ko jigéen mhm. kon ñaari góor mën nañ ci tegaloo ñaari jigéen mën nañ ci tegaloo mhm. lii ñu gis ñu publier ko bu dee ni listu Dakar noonu la tëddee dañu def góor muy Barthélemy teg ci jigéen teg ci góor teg ci jigéen teg ci ñetti góor mhm. kon xam nañ ndax respecté nañ parité wala déet ñaareel ba dañu wax ne dañu ñëw pour doon remplacer ñoo nga xam ne dañoo désister wala dañoo démissionné. Mhm. code électoral dafa tere loolu. maanaam remplacer remplacer ku démissionné wala ku désister. soo déposé ba pare. Mhm. amatul parce que délai bi ñuy wax ni délai de dépôt passé na. Mhm. gis ngeen ko keroog yéen ñëpp seetaan ngeen. Mais d'ailleurs dañu def. mais mais mais le code électoral bi li mu wax monsieur le ministre moy mu remplacement sax mën na am ga waye na nek ko xamné dafa inéligible wala bok mu ñàkk bakanam ñaanuñ ko yalla ci lolu ci la jëm si. Mhm. ci la jëm ci dama ne keroog gis ngeen ñu def tirage société civile mo def tirage bi. Mhm. ki moy jëk jall ki mo ci top, ki mo ci top ki mo ci top ba liste yi jeex. Mhm. kon ku nekk ñëw nga déposé code électoral bi wax ni. cas yi nga mën a remplacer bu bisu élection ba loolu may nañ ko ba ñuy subale élection yi ci minuit. Hmm. mu am candidat bu dee. Hmm. wala candidat boo nga xam ne ba ñu contrôler dossier gis nañu ni warul mën a nekk candidat. Hmm. soit ay atam matul wala tëj nañ ko kaso peine bu tax ba ñu warut a mën a doon candidat. kon ñaari cas yooyu la la may nga jëw remplacer. loolu mooy li nekk ci texte yi du ko commenté. Mhm. damay fàttali rek li ne ci texte yi lu nga xam ne mbindeef mënu ko dindi kenn ku nekk nag yaay commenté sa bopp. d'accord. maa ngi gërëm di la sant. jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké euh, Ndiaye effectivement code électoral en cas de remplacement yii la ci wax muy koo xamante ni euh, da nga inéligible wala boog mu ñàkk bakanam, ñaar ñooñu remplacement mën na am waaye démissionné wala nga désister code électoral n'est pas ñooñu du nangu ku len remplacer bu ñu ci li ñu wax ci article L 179 Abdou amna am Salam keneen aleykum salaam wa rahmatulah. Ah, kooku. El Hadj Baar dama ko. waaw kooku. maam Sini Diop di la wooyee fii ci diwaanu Diop Saaw. waaw na ngeen def Diop. sant yàlla di gërëm waa Fitri Média. jërëjëf. di siyaare Abdou Thiam ci machine bi ak équipe RFM matin yëpp. Mhm, mhm. di leen ñaan yàlla ne yàlla dafa jàmm. amiin ñëpp ñu bokk. ndax ñu tax ñu xam ne xew ci àddina bi yëpp nag. Mhm. am ngeen jàmm seen njaboot am jàmm Baar man li wax bariwul. mooy man yàlla dogal na démb kontaan naa xam nga ma kontaan. Hmm. Euh, dañuy dëkk bu maata xew boo du maata des fois da war a ba ñëpp xam ne am ngay hmm. moo tax démb bi ma gisee euh, ñoom Maam Bamba taxaw. Hmm. Alioune Ndoye taxaw. pour ñu wan pour par exemple ñee lan bëgg ku ne il faut il faut nañu kii duñu yëpp fitna waaye il faut ñu fekk fitna ci tuuti quoi parce que man dama jàpp sama xalaat bëggaat. parce que moom fitna la parce que boo gisee ma di wax loolu moom toolam mi wax naa ne dama fay ma ngay def tëli bu jëm foofu. même askan mi dëkkal fii fii sax bu ñëw fii bu bu bu waxta ay setal lay dem ci poche bi di il faut nag euh, Macky Sall mi xam ne moom la yàgg ci bopp réew mi moom mu bañoon nooy bu mu jaay doole kenn waaye bu mu nangu tamit kenn du ko jaay doole. Ah, waaye ci réewum démocratie lañ nekk tamit nañ ko lu ci mën am daal nañ ko déglu rek. Mhm. voilà. man daal li may man li may woo ndaw ñun ndaw am xel bu ñu benn politicien di xeerloo ñun ñëpp ay ay il faut ñu bàyyi xel ñu ñu xeerloo. kenn ku ne say doom wala say jarbaat yi nga jaakaan bi bitim réew noonu ci nga bar nekk kenn kulooloo bu ñu kenn xeerloo yu comme ko wilaan waxee nekk di daaj wallaay askanu ñoru leen seen karkaat leen ñor ak seen livre bi sax am na lu ko gën ku nekk yaa ngeeg sa carte sa carte électorale bu jotee rek nga fa ngay taxaw xam nga ko waay Bart waay Bart dundal waay Bart bi dégg daaj na yàlla dafa jàmm waay man lu yaa gëm quoi te ku dul ma xeeb lank naa mën billahi hmm. jërëjëf sénégalais yi daanaka jàpp leen ne sénégalais yi moom ils sont ñor nañu lépp li politiciens yi di wax dañoo toog di xool rek bu bés ba jotee ku nekk gàddu sa carte dem fa ngay taxaw xam nga ko ba noppi laata ngay jublu ca mbañ gàcce ya salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah kooku kii benn mbokk taalibe la waaw na ngeen def bu ne woon rek day lekk Mhm. waaw acca ay waaw. bi tabarakallaa gàttal di nuyu di ziar di am mbégte. jërëjëf. di wax rek nañu woote jàmm. Mhm, mhm. réewu jàmm lañu ne. li xew démb du ñu ko rafetlu. ndax boo ñuy woo wooñ ci jàmm ak salaam ñu ànd ak yow ci jàmm ak salaam. ba ci démb ba élection locale yi di jàll ndam la amoon. ñëpp ànd ci fas yéene ko jàppale. waaye li xew démb kenn rafetlu ko. ah ñun nag ay Sénégal la ñu bàyyi xel nag son excellence Macky Sall fas yéene ànd ak moom mais ci jàmm fas yéene ànd ak moom ci teraanga hmm. fas yéene ànd ak moom tam aussi ci ndam waaye may woo waa Sénégal ñu bàyyi xel ne lu mu leen jaral ci am ndam ñun jaral ñu ko ëpp ñu am ndam hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum. ñi ngi sant yalla koku bàyyi nga pap ah. Kobar. ah. Pap Kobar Selmaxa. ah pap na ngeen def. ndaka yaram sant yalla bu baax nu ngeen def pap ñu ziar baax. naka wa sin Maxa yëpp. ñi ngi ñëpp lay ñi ngi contenté si yow baax. jërëjëf fayal ma ñëpp. di la ñaan sa yar ak sa teggin. amiin jërëjëf jërëjëf. xam nga ba baat li mi. sa turandoo waa benn waa waa yeewe askan wi. Mhm. il faut mu daal leen. Mhm. ñoom da ngay ñi nga mën nañu mën mën nañu politique

nga bëgg dugg si euh, dugg si politique am ñeent kan am ñeent euh, député tey ren nga amaat ñaari député tey ñu du député ñëwaat ñu dugal la si quinze place loolu moo jaaduwul. Hmm. ga gis nga waa yeewi ñoom dañoo yeewi askan waaye seen ñoom seen bopp ñoo ñoo yeewoogul ñoom ñooy nelaw. <laughs> kon ñu ngi ñaan waa waa waa waa pes hmm. nii nii nii ma jóob jóob def nan ko def la Alaaji Mansour rocceeku bàyyil waa waa yeewu askan ñu dem. Hmm. ndax ñoom dañoo bëgg yeewu askan lu parce que ñoom duñ yeewu. Mm. fab ay kilifa ñi jàng am ay diplôme ñi réew yëpp soxla leen. Mm. ñi ko yóbbu keesam ñi ko yóbbu keesam place bu loolu moo jaaduwul. <laughs> maa ngi ñaan waa waa bés ñàkk daal alaaji Mansour Sy Jamil. Mm-hmm. na rocceeku bàyyi lu ay yow askan wi ñu dem. d' accord askan wi yeewu yeewu nañu waaye nag kilifa yi askan wi ñi jiite yi kilifa yi askan wi ñoo yeewu. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf euh, Pape 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou Thiam am na keneen ñu jël ko salaamaaleykum. allo allo maaleykum salaam kooku allo Abdou daa mel ni yegsiwul 88 628 14 14 salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah koku Souleymane Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari la. waaw Serigne Mor na ngeen def. ah ñu ngi leen nuyu di leen wa waa réseau Louga bi yëpp rawatina waa Touba Mbacke. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di ziar. allo Barthélémy. Wa wa, ma ngi lay dégg Mor. ah sama yóbbante chef de l'État. Hmm. ne la. ñu ko Abdoulaye Wade joxe woon réew mooy démocratie. Mhm. taxaw ñëpp seen ko muy jox passation jox yëpp document réew mi yëpp Abdoulaye Wade yëkkati ko ko jox. Mhm. président moo war a yeewu Barthélemy démocratie wax naa la ne amul prix. Mhm. démocratie amul prix. soo xoolee tey jii nii Côte d'Ivoire gee gis nga Laurent Gbagbo ak euh, Abdourahmane kii gis nga la ñoom ñaar fan yii paas. te y' a euh, presque huit cent et te pourtant fan yii ñoo koy akolaatoon rek ah. Blaise Compaoré bu muy dem mu ñaata at la def fële bu dem forcé ba population ba ko wàcce mu daw dàq la laqatu ci ko diwaar soo gisee ñun ñuy woote sa rajo mënoon nañoo toog rek bañ a woote. mais jàmm ñun jàmm lañu soxla ci réew mi. président Macky Sall na doxal jàmm tam xool li doxal réew mi. te mooy ci ndugg transhumant wax naa ko ne transhumant du mat a defar réew bii eh, doo Ablaye Wade di woo naa ko gaye nga ma am na ñu doon Ablaye Wade doon wax woo leen ma diw woo leen ma Macky Sall ma dañoo lànk ne Macky Sall yoruñu numéro te tey jii ne troisième ne dina fekk Macky Sall nga ko doon am droit hmm. moo war a ñëw xool ñu koy wax dëgg ak ñi koy jëy bokkul ne doxal réew mi jaar la ko ci Barthélémy kii nii Dias nii solul boppam sénégalais yi nekk fii Dakar hmm. ñoo ko jox majorité hmm. Ahmed Aïdara ma nga fële ca Guédiawaye ak mooy yi ànd salaamun yëpp dañ leen a yëkkati ba ñu tal door leen ci suuf Ahmed Aïdara jër mairie bi hmm. gis nga pouvoir yàlla moo koy jox nit Macky Sall bu fekkante ne yàlla doxal li mu doxal tey du falu parce que boobu ñuy xalaat Moustapha Niass di xalaat Tanor di xalaat Idriss Seck yàlla ne leen eh taxaw leen kii Abdoulaye Wade di wax problème la moom laa yëkkati wan ko man faalu li ma yurit maa li ko neex hmm. ñoom ñëpp ñu jël تخرج من روحي ودين تنتقل فتاي بني بمغني بني بمغني شغل بني بكرة مو كان جاي جاي جار لا فوق من ورف وانا جار مين تو مين بوا دانا جي خلقه دين قبل عاد مفنا كون جي كتو تخترم تلو تراني جين لين قبل عاد دفل فاتني تو قاب غور غور لين جار لين ريم ديمقراطي ñaari man nga waxon yema ci ñaari man lay mais ñi lay wax lay ñu dañ la bëgg ba mo duggal lu lu xamne sa yoon ne ko ci jërëjëf euh, Serigne 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum euh, salaam. kooku. sëñ Ba man euh, monsieur monsieur Lamine Ndiaye maay alliance des cadres de la santé. monsieur Ndiaye alliance des cadres de la santé. oui waaw. Ah. mais du wax santé damay réagir rek ci question politique bi nga posé. Mhm. waaw di du débat bi mais dama doon relever rek euh, benn équivoque yaakaar naa ne euh, euh, Barthélémy Diaz dafa am chance bu nga xam ne da ko téye yaakaar ne da ko mu ko bëgg a réer mhm. ah, je pense que yàlla bu la tegee joxee chance bu toll noonu en tant que jeune nga ñëw ba nekk maire de la capitale de la capitale mhm. am na benn attitude boo xam ne war nga ko mun a jox joxe image boo xam ne war nga ko mun a refléter pour inspirer la jeunesse mhm. pour ñu xam ne li nga yor nii fulla ak fayda moo la ko may waaye tamitam itam da nga da nga yaa ngi xirtal xele yi ñu am fulla ak fayda góorgóorlu. Mhm. ku bëgg a diriger nguur war nga joxe exemple. ci respect ci sur tous les plans. Mhm. ba ñaareel ba war na mën a euh, jàpp ne def différence entre le pouvoir universel bi mu wax ne président Macky Sall moom la am ak moom bosam. Mhm. moom c'est un maire c'est un maire il n'est pas président de la république kon mënuñu. Euh, takale rôle président ah, wala pouvoir président pouvoir du maire mhm. le maire il est sous la tutelle du président parce qu'il reçoit ses subventions Mais mais na na xam pouvoir est inclus dans le pouvoir universel du président de la République mhm. ñaareel vous bu fekkee da ngaa bëgg a defar capital da ngaa bëgg a liggéey ya du doole du du mhm. il faut mu dal jàpp ne moom du moom moom liñ koy poñee di ci biir ci kanamu euh, télévision nationale yëpp ak international loolu neexul li ñi mhm. donc na dal xam ne am nañu ay milliers nit ñoo xam ne ñu ngi Sénégal ñu ngi ci ñoo ko faloon ñoo am ci moom yaakaar mhm. waaye bu bëggee xañ-xañee nii di jéem a xëccoo ak ak pouvoir mais pouvoir kenn mu xëccoo moom mhm. non déteste mooy mooy il doit s'en prendre à à à à la coalition mais antinomique de de yow askan wi yow askan wi euh, suufu kànja la

Euh, inéligible mhm. nga ne nga jóge parce que dafa démissionné am problème ak sa parti ak seen coalition nga jékki-jékki da nga koy remplacer en cours de en cours de jeu non loolu ce n'est pas ce n'est pas raisonnable mhm. nañu bu ñu xirtal Sénégalais yi ci ay erreur mhm. ñun dañoo dañu tal leneen ñun dañu bëgg a liggéey suñu réew mi dañoo bëgg a defaru nit ñi dañoo sonn ñi xale yaa ngi ut ñii di dem fii ñu ne fa président Macky Sall du sax nu nu ma bokk moom mais dama xam ne am ku ne bu boo gisee jéego yu ñuy teg nga xam ne

une merci merci Ndiaye merci beaucoup Ndiaye c'est vrai que euh, développement bon tax ñëpp euh, di daw euh, gis nañu réew yi nga xamanteni détail politique tax développement bi tardé. Euh, moment bo xamantene ne nous sommes dans un monde où ku ci nek rew bu nek yaangi ngi liggéey lu la euh, kanam lu yobbu sa askan kanam donc yakarna naa ne loolu la wara war euh, def focus ci loolu la wara def focus ci lañ loolu la wara focaliser wu ngir génération yi ñew salam alaykoum alaykoum salam wa rahmatullah. Omar. Barthélémy. no def Sow. ah xat na trop de mais nak yalla dogal na vraiment jëngu naa fi sànq RFM mom wax ko mom jarna lu eh, la laa wax serveur bi yakarna naa ne lu mu xat xat xat day xamé sa numéro. ah wax dëgg yàlla nag ci at naa te wax métti na trop nag. jërëjëf na kii na mais Barthélémy. Mhm. maa ngi lay gërëm baax la sant. Eh, gis nga réew mi Sénégal. Mhm. jàmm moo ko jig te jàmm moo fi am. Mhm. lu député Farba Ngom lu mu wax. gis nga actuellement li may conseil waa ki waa benn bokk yaakaar bu ñu nelaw nañu yeewu laa la wax gisee benn nit laa la wax mënut a yàqu po benn pompiteer bu nu warut a yàqu saako nañ ko jël seppi ko fële. déjà moom lu mu am ni am na lu mu ko mën a amee loolu yëpp di gars yi coowuñu si am na lu mu téye ni way na ko téye fukki loko ak juróom benn xaw ma ñaar fukki loko ak nangam mais histoire di woon nit ñi ay histoire Sénégal am na leneen lu ñu tal Barthélemy ñun xam la lañ tal lan la mun a ki yeggali chantier yi laa la lan la mun a am dépense bu doy yóbbu ko seen kër nan la mun a mun a jot fay fayum location fay ko à temps nan la mun a fi ngay fay location feex ba nga am sa sa cent cinquante mètres carrés pour nga ko

Mhm. tu ba kii Salif big bi mais le dernier mot Déthié moo koy bu baax après dem ko fi ko a bu ko mu gis carrément la la faute pour liste nationale bi ki problème y a na Fall pour la liste nationale bi amul problème Mané, wax yi dang koy wax Fall sacrifié Diaz mhm. il le mérite man maa ko war parti kaw maa ngi la gërëm di la sant di la ñaan yàlla defal la jàmm ñaan vraiment proposé Moussa yàlla Moussa ko seytaan son excellence monsieur le président de la République le maire de Gorée El Hadj Mangoy Diaw merci Omar Sow merci euh, jërëjëf waaye nag liste moom daanaka coalition bi responsable yi ñoom ñooy toog euh, souvent euh, concocté ko dal di yóbbu déposé ji mandataire bi gaa mooy yóbbu waaye du càggeen ne moom moo rek mooy def liste bi déedéet salaamaaleykum Barthélemy oui Ousmane Dem Prosanti Gabon Ousmane na ngeen def alhamdulilah macha allah. jërëjëf dem damaa soj nag Barthélemy. déet waay <laughs> waaw. waaw damaa soj soj bu metti sax. <laughs> yàlla baax na ah, ma ne Barthélemy. li ma gis démb ah, ak ñi fi nekk ñu ñu gis. Hmm. Barthélemy kenn rafetlu ko si àdduna bi. Hmm. gis nga lii dafay delloo même réew ginnaaw. xam nga Barthélemy yéen mais yow journaliste nga di xam nga lii lu Barthélemy lu mu def nii. su fekkee beneen réew la. yaa gën a xam du fanaan këram. di puus syndicat alkaat di poñe ay policier di dee du man mii jangula man duma def liste bu mel ni di di gërëm dépôt ñoo gën a li ay jeu politique la ñoo gëna xamne xam ne liste bu yor ni buñ ko yobbe ci bi dañ koy rejeté ñoo ko gëna xam Barthélemy ñaat yoon lañ déposé liste ka kañ lañ jógee élection lu tax déposé liste mel lu tax yeneen ah yenen gox yi defuñu liste bu mel non lu tax def ko Dakar rek jeu politique daa am lu ñu bëgg man limay wax wa Benno Bokk yaakar moy buñu ñu gaay yi ak terrain bi na ñu taxaw di dem si rajo yi parce que sénégalais kuy wax rek la ñu xam gis nga boo noppee dañu dañu dañu jaar sa kaw jàll nañ dem ci rajo yi rajo bu ñu nekk tele bu nekk nañ dem toog ci plateau yi di expliquer di leeral nit ñi di wax bu ñu génnee wax lenn ñoom dañuy génnee wax fukk bu ñu bàyyi teene bu ñu yox yox yi président lañu àndal bu ko nëbb leeral sa bopp man président la àndal ngay génne dem si yi di wax di leeral loolu mooy yoon bu ñu nekk ci biir kër di taal seen clim yi di nekk ci terrain bi loolu moo tax élection yi passé ñu def leen noonu. parce que de ñee rek di ay góor jigéen ay góor jigéen ñun noppi rek yéen waxuñu daal leeruñu dara ba ba élection yi jeex ba léegi déggatoo wax bu mel noonu. d'accord nañ génn ci terrain. salaamaaleykum jërëjëf euh, Ousmane Deme 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaam allo salaamaaleykum. alo ñu ngi lay jaar. ñu ngi delloo siyaar kooku. modu Gueye. waaw noo def. maa ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Guèye. Batt 2012. ñoom Mamadou Diop ñëpp dee nañ dañoo perte. Hmm. na seen i mbokk chaque jour ñu ne kañ ngeen di leeral yéen ñi ne si rajo bi yaay présenté journal. Hmm. at mun nañu ne dañ koy feetal. fu mujj fenn. Hmm. ñoom ñëpp seen intérêt bopp moo leen ñor. tey même bu fekkee ne kiñ fal si réew mi mi ngi doxal. moom mi ngi doxal li mu war a doxal. yow falaguñ la. ngeen nekk opposition ku nekk di xëccoo jàppal bàyyil jàppal bàyyil ñëpp intérêt général moo leen yor beneen mooy boo nekkee man dama ne chaque jour nit koo xam ne ni dafa am ay ndaw ñu topp sa ginnaaw ñi am nañ xel ñi amuñu xel chaque jour li ngay génne dee leen woon bon exemple nuñ jàng jee métier wuti dara xëy di yëngu ci dara ba mën a yor seeni parents mm-hmm. ab politicien dafa am benn bon exemple bu mu war a woon nit bu mu ko war a jàppalee ci kim tane ci peuple am mm-hmm. tey lu tax dundu gu seer gi jarul leen xët gisaguma benn politicien bu taxaw ne tey dañuy marche dañ ñëw ñu marche pour ceeb bi seer diwlin gi seer na nangam seer na dimbali askan bi ñi lekk bërki démb dañ ne Macky Sall mi ngi toog fële di jàppale ay nit di leen envoyé mais ana ñeneen ñi nga xam ay opposant lañ nekk si politique bi ne ñoom dañoo askan bi moo leen ñor lu tax ñoom xooluñu terrain wala gox bañ dëkk wala commune bañ dëkk nañuy fayee patente nañuy def nangam nga nga am loo sa fell la waxtaan ak état loo xam ne ni la ñuy dundee mais nit ñi di xeex di mars ñu ne toujours ñoom ngay dem ci élection yi bu jubsee nga may leen benn saaku ceeb wala benn affaire mu jeex nga lekk ko mu jeex te la ñuy dund yow xamoo ko location bi ni ñu ne président nee na mënatu si dara ñaat nit ñooy liggéey ba weer dee bala ñoo génn fa ñuy fay ko buñ xalaatee location la ñuy fay sax duñ am luñu dépasso lu tax ñoom ñu politique mënuñu loolu si askan mënuñu ko ndax rey nit ñi ay coow ak ay liste bi nii naag nangam na mais nañ wax si loolu ki jege Macky Sall na ko ni hé Macky nit ñi sonn nañ nit ñi si biti xam nañ ko ñun dañoo dëkk ay baadool la te ñun ay baadool lañ sax bu ñu neexee loolu la ñu woowee suñu bopp ndax loolu la ñuy jàpp ñoom ñoom ñooy buur yi ñooy lépp mais nag ñoom nañ génn dem ci terrain bi yendu si nit ñi wala ñu dem gën a ji ay ñoo xam ne ni seen doole eggul fenn fi ñu xool li nit ñuy dund ñu xam ne ñoom li ñuy dund wuute na ak ñeneen ñi li ñuy dund mhm. mais yow bu bëggee xool ne yow li ngay dund kër gi nga nekk la nga fay nekk ak la ngay def lépp yow yaa ngi sa jàmm di dund li nga war a dund koo ni dem mu topp la ndax benn cinq mille benn deux mille bu jeexee ëllëg wala mu ñàkk ci bakkanam ay parents ñooy perte ndax mënoon naa dund ba leen nga sacrifice sa doomi jàmbur sonal ko tey ñaata nit dafi nekk di politique nekk opposition est ce nga seen rakk wala seen doom wala seen jarbaat mais suba bu ñu faloo indi la doom joo xam ne nii dañ naan la moo fépp xam-xam moo fi gën a jàng moo fi gën a nangam te ñoom bu ñuy rayante ñu leen doon jàppale di leen rayante loo ñooña xamuñu woon sax seen doom jooju suñ fi ànde ñu toogee benn at ñaari at gañ a réew ñenn ñu commencé divisé wu ñii naan la diw daa war diw daa nangam maa doon moom démb maa doon ànd ak moom bërki démb bu seeni problème jibo ñuy xasante ka yàkkante lu ne ay ay nit dañuy bokk sax parti di xasante di waxante lu ñaaw suba bu ñu àndee boole bopp yi après sa militant yi lañ jëmaat ñëw naan leen léegi ginnaaw ay jàmm defar seeni côté ñu noonu la ñuy dundee ba kañ nañ xoolaat doxalin bi ñun ñi nga xam ne ñun lañ jàppe comme askan ñun ñoo nekk ci kër yi ñun lañ yaakaar terrain yi ci bureau de vote yi ñun nañ wane nañ wane suñu fulla ak suñu fayda wala leen ni carte bi ñu yor benn la li ñuy ndaw ndaw ndaw ñu am na lu mu ñuy jariñ mais ñun am na lu mu leen amal njariñ mhm. bu ñu ko mënta defal chaque jour nañ fexe ba jàngee na ñuy fale ñun te bàyyi folle gu métti gi tey fal. buñ falee nit ba mu xam ne askan wi décidé fal la boo lëggee boo toogee liñ bëgg dig ñu ko defal. Mhm. d' accord waaw jërëjëf. jërëjëf Modou Gueye 88 628 14 14 salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw mais door. Barthélémy maa ngi lay nuyu Ngom maa ngi lay nuyu lu bare bare. ñu ngi lay fay waaw. nuyu Couture ba Dia di am mbégte. Mhm. yéen ñëpp jàmm di ñaan jàmm rek. waaw li ngeen waxtaanee moom wax dëgg yàlla dafa nekk lu xamante ni lu garaaw garaaw. ndax euh, Barthélémy moom Barthélémy Dias li mu def noonu loolu dafa nekk lu nga xamante Sénégal yëpp teg nañ seen bët. Mhm. mais dafa am loo xamante ni moom moo gën a xam code électoral moom moo gën a xam affaire élection nu mu demee lépp xam na nu mu demee. parce que parité bi loolu ñoom même ñi mu farandool sax ñoom ñi ngi koy doxal am na si ñu koy doxal mais moom su defee noonu moom nag nañu nañu respecter institution respecter république respecter président de la république mais ñoom lu jóg rek alors <laughs> dañ naan président président Macky président Macky Sall mais président Macky Sall ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo féete ak moom nañu gën takku gën a taxaw parce que politique moom euh, wax la boo noppee rek rafle comme damay rafetlu démb comme li nga xamante ni monsieur le ministre Seydou Gueye def na ko euh, porte parole président de la paix ànd ci ak ñoom Farba Ngom wax dëgg yàlla ak ñeneen ñi alliés yi mais loolu dafa nekk lu nga xamante ni bi lu am solo. def conférence de presse leeral. Mhm. mais parce que sa bu ñu ko attaqué da nga war a jóg politique moom politique la rek. waaw kenn ku ne li nga gëm foofu ngay wax mais damay wax ne il faut que ñuy jàmm di doxal jàmm. Mhm. di moytandiku di attaqué alkaati di wax di euh, euh, boole ci affaire yi parce que ñoom seen liggéey la ñuy def. Ah, lu jóg ñuy attaqué président te loolu du dëgg yoon. ñoom ñoo leen gën a xam ne amuñu programme te xam nañ ne maire mënoo ko nekk te àndaloo ak état moo tax seen maire ñoom ñu ngi ñëw di ànd ak président Macky Sall. Hmm. su ne ñu ngi def ay bunt di ñëw pour soutenir président Macky Sall ànd moom ci liggéey bi. d' accord jërëjëf Medor 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou Thiam am na keneen salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. El Hadj Xaas Mbaye Mbacke Bawol. El ngeen def. ñoo ngi sant yàlla wér wér jërëjëf jërëjëf waay Patrick ñoo ngi leen dokkee di leen jaare di jaare Abdou Thiam moom ak Ablaye Diop sama a jërëjëf ñu ngi la koy dellu baax na di leen dokkee jërëjëf Patrick mhm. euh, ministre Serigne Mbacké Ndiaye yàlla nañu ko yàlla fayal parce que moom moo ko alaaji asan dañoo yem taxawaay ci réew mi mhm. amul benn bis bu mu nit di woon ne ma ñaanal ma Serigne Mbacké Ndiaye santal ma ko parce que jàmm lay wax bu ko neexoon chef de parti mais dafa jël boppam réew mi ñor ko ba tax toujours lu réew lu baax lay wax ci réew mi fi may dikke nag mooy li xew ñoom ñoo war a wax askan dëgg yeew askan parce que ma jóg jóg moomu ñu wax noonu moom suppléant la suppléant noo koy defee suppléant pare mu mu mu bañ nga ne ko dama koy sensé xam nga day am loo xam ne bëtlim du maire yi du kenn loo xam ne tey am naa sañ-sañ man dem léegi ca maire bi dépp sama extrait dem daal ne maire signal ma ko léegi léegi léegi parce que citoyen laa Mbàkke laa dëkk fu mu tegee am day dox ci yoon dox ci ngor dox ci fula ba dégg naa mu cité ba cité département bu Mbacké mais waa Mbacké ñoom ñoo war a xool lan la leen président Macky Sall ji ak lan la leen defal parce que dama ne li sëñ Abdoulaye Mbacké waxoon bu bu defalee Serigne Touba ñun talibi Serigne Touba ñoo ko war a fay te Ila Touba bi képp ku ci jaar sa wajur jaar ci yóbbu ko mu faji dem Dakar jëli rendu dikkaat ba nga xam nan la la président Macky Sall defal su fekkee ne ba ci jaar mooy taxaw ca Dakar di leen di naan leen Mbacké maa ko moom war nañoo xolat seen bopp adduna du leneen lu loxoy Kajoor day weesalante am na loo xam ne ñenn ñi buñ ko defee defuñu ko ci ngor defuñu ko ci jom affaire yu góor jigéen yi ñuy manipuler di ko wax seeni njaboot ñoo jur seeni doom président Macky Sall daganal lu góor jigéen indi fi góor jigéen boo juree sa doom muy roosaaw di macci kii di xeesal nga bako ca su nekkee góor jigéen yaa ko ci jëmbët dañu wax dëgg te yàlla tax ñoom moomuñu réew mi yëlifuñu réew mi dañoo nekk benn pàcc nekk maire dakaar maire Dakar pour mu jëriñ Dakar faaw mu ànd ak état mm-hmm. liggéeyal mën a liggéeyal moo fa mujjee nekk maire ku ne ma Moustapha Diagne mais Oregon ak réewande taxul nga am dara ñii dox ay transhumance rek seen i waajur ak ñoom fan la nekkoon ban parti la nekkoon bu ñu tëb ñëpp ñëw yeewi askan am na ci parti bu ñu daal ñii seen i bàyyi PS la nekkoon ñi Ablaye Wade ñi nangam Ablaye Wade moo yóbbu màkk defal leen lu ne tey anam banaan ko fi nan wax nit ñi dëgg bàyyi caaxaan yeeg tappale yi ñu mhm. politique du théâtre nañ waxante dëgg te ñun xamante muy jaajëfal yàlla jërëjëf parce 88 628 14 14 88 628 14 14 ñu jël keneen ci euh, ligne bi ci li ñuy waxtaanee ni ki euh, tey jii Abdou Thiam am na keneen salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. aha kooku. maa ngi tudd Adama Dieng di la woowee nag fii ci Touba Mbacke. Adama Dieng na ngeen def Adama. maa ngi lay ziare. Dieng naka waa naka waa Touba yëpp. waaw ñu ngi fi ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf ñu ngi delloo ziar Dieng waaw. Barthélemy waaw xam naa tënk rek ndax waxtu wi li ci li ci def xam naa bëreetul. Mhm. vraiment li xew démb direction générale des élections moom ñu ngi koy ñaawlu bu baax di ko naqarlu. Mhm. parce que nag rafetul ci image du Sénégal. jàpp naa ni nag ki ci gën a am responsabilité mooy le maire de Dakar muy Barthélemy Dias. Mhm. ndax jàpp naa ni moom xam na li ko yoon may lépp. kon bu demee bay def loolu rek li mu ci jublu mooy victimiser wu ak politique. ñun nag dañ doon dugg ci rajo yi ci antenne yi bari di alerter Sénégalais yi pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ñi nga xamante ni war nañ leen fal surtout ci dara ci ci maire bu toll ni maire de Dakar ndax jàpp naa ni kenn warul fal institution bu toll noonu ñu di fal nit koo xamante ni dafay jël li ñu ko jox di ko xeex ak état bi loolu lañ tàmbalee gis ci nii ci Barthélémy Dias te lu te loolu su amee Barthélémy Ngom mhm. waa Ndakaaru rek ñoom ñoo ci perte man nag li ma gis ci situation bi li ko waral dëgg-dëgg mooy biir coalition yi ci boppam démocratie dafa amul ndax jàpp naa su fekkee bi bala ñu ko déposé nañ woo cadre yi nga xamante ñoo seq coalition bi yëpp ñu concerté wu xool ko mhm. kon su boobaa su fekkee erreur am na ci ñoom ñëpp dañ ko mhm. ma gëm ba gëm ko mooy liste bi dañ ko doon nëbb liste bi nag comme dañ ko doon nëbb déposé nañ ko na ca ndax mhm. woon dañ ko doon nëbb léegi nëbb nañ ko nag am na ay njuumte yu ko xew léegi benn ñaar rek moo xew moo mën am su fekkee yoon may leen fu ñu ko mën a réclamer ñu dem réclamer ko su fekkee yoon mayu leen ko nag ñu xam ne ñoom ñoo def seen erreur politique rek ñu assumer seen responsabilité. d'accord jërëjëf jërëjëf Dieng euh, mu nekkoon nag sunu auditeur bu mujj Adama Dieng ñu koy gërëm gërëmaale mboolem ñi fi woote yëpp jox ñu seen euh, gis-gis sen xalaat ci li ñu doon waxtaanee niki ki tey euh, tey jii gërëm ñi toogoon nit naka noonu doon déglu rajo bi ñu leen di sant bu baax a baax a baax li ñu mën a wax mooy li xew ñëpp gis nañu ko ñëpp xam nañu ko ñu fàttali rek li nga xamante ni moo yóbbee waxtaan bi mu di liste Yewwi Askan Wi bi ñu ne dafa respecté wul li nga xamante ni moo di loi bi jëm ci wàllum parité tax ñu bëri. yi ne daal boo moytuwul ci rejeté ko lañu ñu jëm looloo waral ciowli tax Barthélémy Dias bàyyee ko maireem dem ci direction générale des élections Euh, loolee nag euh, am nañu ko fi euh, ñaawlu ne Barthélemy kilifa la maire Dakar donc sàkku ci moom rek mu ànd ak dal bu dee lu mel ne mel am na tax mu nekk ci liste bi nekk ci risque am na weneen yoon yoo xamante ni mën nañ ko jaar ci njekk ak teraanga ndaxte réewum démocratie la ñu nekk war nañu mën a déglu ku nekk ci jàmbatam ñu xool nan la ñuy def ba daal di ko lijjanti moo gën xaxarante geeg xuloo geeg xeex yi ndaxte xuloo geeg xeex mi moom jëmalul réew mi fenn lu

toppee ko nu mu waree su ko defee euh, ñu mun ko yoot ñeneen ci njëkk ak euh, dal kon nag euh, classe politique bi ñëpp la ñuy woo rek ñoom it ñu ànd ak dal c'est vrai ci élection la ñu jug dëgmal te élection moom naka jekk daa mos a bëri coow waaye lépp it nañ ko def ci responsabilité ngir jàmmi réew mi su ko defee ñu taxaw développement bi ci war jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom la woon ci kàddu gi Abdou Thiam ci machine bi Yacine Pouy ci xarala gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi te di ko sàkku ci